bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa xabibina wa shafiicina wa mawlaana muhammad ibn abdillahi wa ala aalihi wa saxbihi wa sallim ixwatil kiraam maalil ulamaa asaaba samaaxa asaaba siyaada asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokki tedd yi nuy déglu ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaar di leen balu àq te di leen baal àq di ñaan yàlla yal na nu yàlla boole jégal Sud FM seen rajo 98.5 kaddu gi bàyyi ko fi ci ndakaaru dellusiwaat na ak yéen seen émission bi ñu tuddee jaar-jaare yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam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 yal na yàlla musal ñu ci gàcca ak cet ak yàquleeg ndog ndog bi jaay si dil wujud wa alami shuhud yal na yàlla dooleel lislaam dooleel kuy dooleel lislaam képp ko xam ne boo amee doole lislaam am doole yàlla na nga am doole képp ko xam ne boo amee doole lislaam néew doole yàlla boo am doole bi jaay si dil wujud wa alami shuhud yal na yàlla benn la juliti yal na yàlla benn la sàppe yi yal na yàlla musal ci ci sunu noon yàlla bu yàlla dooleel sunu noon ci sunu kaw bi jaax si lu wujudi wa adam shuhud yal yàlla musal Sénégal ci xeex ak ay ak ak noon bu jekku ci àll ba dugg ci réew mi yal na yàlla fël ko mu jëm nale bi jaay seydil wujud wa alami suut te bañ ko yóbbu ci benn réew ñu ngi ziar ñëpp di baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq te di leen baal àq di leen ndokkeel bu baax itam ci àjjuma ju tedd ji di ñaan yal na nu fi yàlla sàmm ba mu dellusiwaat te nu weesu ko ñoo ngi nuyu soppe yeeg am di jàmm yépp di nuyu boroom xam-xam yi di nuyu waa réew mi ak bitim réew ñëpp tabaarakallah mbokk yi ginnaaw loolu nag bu wéyee nu teggi sunu baaraam fa nu ko tegoon ci yoont yàlla suleymaan alayhi salaatu wassalaam nga xam ni moom yàlla dafa dogal mu di yonent bu baax yonent bu bari njariñ te bari ay may toppoon ngeen ñu digganteem ak picc ya digganteem ak sabinu picc ya ganaar ya ak siq ya déggoon ngeen diggante jàmbu jóob ak tan ak ganaar seeni jikko lu ci nekk faram fàcce nañu ko te lu ci nekk dafa am lu muy dox ci sunu dund ñun doom aadama yi léeg-léeg ñun la picc sàngam dafa wax nangam loolee picc ma wax nit a ko waroon wax wala boog nit la koy waxal yàlla mi xamal yonent yàlla waxu picc moo koy firil la picc ma wax yonentu yàlla Suleymaan ànd na bis comme ni ma leen ko waxee ca waxtaan yee jiitu di baaw naan dem ba jub benn xorondom xorondom bi yëkkati ay tànkam di ñaan allahuma ana xalqun min xalqik laa xinan lana an rizqik wala tu bi zunubi bani adam wasqina di ko ñaan yàlla déggloo ko yonentu yàlla Suleymaan mu naan ko man day yàlla nun xorondoom yeeg sunu famille sunu giir ay mbindeef lañu yu bokk ci sa ci say mbindeef yaanu bind amunu doole amunu pexe soxla na nag sa xéewal ak sa tràngate mooy am ndox soxla na nag taw yàlla wàcceel ñu sa taw te barkeel ko rekk yàlla ñu ngi lay ñaan yàlla boo nu jàppee bàkkaari doomu aadama doom aadama yi seen bàkkaar yi bari waaye yàlla boo nu jàppee seen bakkaar yu bare yi yaa dégg wasqi na Suleymaan daal di xool mbokk yi ne na leen wàññeeku te yàlla dogal na itam noonee mu ko waxee mu wàññeeku noonee la ko yàlla tawe ba mu fees dell nit ña am ndox béy mu ñor naataa ngi am ci ci ñaanu xorandoom boobu kon li ñu bëgg jàngat foofu mooy kon kenn warul xeeb kenn kenn warul xeeb lenn loo gis rek muy dem am na fi njëriñ am na lu muy jëriñ yonent yàlla Suleymaan alayhi salaatu wassalaam ànd na benn bis ak soldaawam dama lay dama lay résumer rek li nga xam ne moom lañu ñu waxoon ci àjjuma jee ñu jàll bi mu demee bu benn xorondom yàlla wax loo xorondom bi yaa ayyuhan namlatu udxulu masakinakum laa yaxtibannakum suleymaanu wa junuuduhu wa hum laa yashcuruun yéen xorondom yi yéen xorondom yu jigéen yi boo indi taaw marbuut duma fa yàgg udxulu masakinakum dugg leen regagnez-vous chez entrez chez vous dugg leen seen kër laa yaxtimannakum Suleymaan bala leen Suleymaan a joggi hmm? wa junuuduhum ak soldaaram yii di ñëw wahum laa yash'uruun te du ñu ko yëg nga te du ñu ko yëg fekk ndeke Suleymaan dégg na ko fa mu nekk ak la muy sori sori sori yàlla déggloo na ko wax ji fa tabassama Suleymaan daahikan Suleymaan daal di muuñ daal di ree dal ni rabbi awzini an ashkura nicmataka allati anamta alayya wa ala walidayya suleymaan bi mu ko yàlla déggloo waxi xorondo bi muy lu leer nañ dafa ni yàlla yàlla nga ma dimbali yàlla nga ma yaatalal yàlla nga ma kàttanal ba ma mën a sant xéewal gi nga ma defal maag samay waajur ndax nga bàyyam daawuda moom it yonent bu amoon nguur la ba pare di buur mu ngoog moo tax yàlla yàlla nga ma dimbali ba ma mën sant yàlla ci xéwal gi ma def ana xéwal gi lan la muy xéwalu dégg waxu xorondom te boobu xorondom bi sori na ko lool yàlla jël wax bi sol ko ci yoon nopp yonte yàlla Suleymaan bu doon te jële jamono bi téléphone xewagul du neex a dégg waaye Suleymaan dégg na ko mel na ne rek téléphone boo composé nga jël téléphone taf ci sa nopp nga dégg kiy wax ca France li muy wax ak yow wala nga dégg kuy wax ca Allemagne wala nga dégg kuy wax ca ca Amérique la muy wax ak yow ngelaw lee koy indi ci ngelaw lay jaar Souleymane noonu la ko yàlla dimbalee mu déglu ko waaye daal de muuñ ree daal yàlla yàlla nga ma dimbali ba ma mën a sant xéewal yi nga xamante ni defal nga ma ko maag samay ñaari wayjur ndax dégg waxi picc rek xéewal la ngoog waaye Souleymane alayhi salaam ni ko yow yow xorondom bi ayyuhannam la hal samita inni dalimun aw alimtum inni nabiyun aadilun falima qulta uduxulu masakinakum laa yaxtimannakum suleymaan wa junuduhu wa hum laa yashcuruun qaalat namlatu ayyuhal malik alaa tasmacu wa hum laa yashcuruun eh, yonent yàlla suleymaan alayhi salaam ba mu waxee loolu dafa ne yow xorondom bi ndax danga dégg ni man tooñkat laa wala danga dégg ni man jalgati àqkat laa jalgati jalgatikatu àqu jaambur laa wala man da nga def ni damay demee doole man ak sama soldaar yi ma àndal dañ di ay tooñkat wala dañ di lekkatu àqi jaambur lu tax nga ne dugg leen bala ma leen dëggaate la nga ma déggal loolu wala dañ dañ la ko wax wala lu tax nga xalaat loolu Ah, jar na laaj itam xorondoo mi ni ko yow mm, jaamub yàlla bi yow ndawal yàlla li xanaa déggoo li ma wax dama ni uhum laa yash'uruun te duñu ko yëg man ngeen noo dëgg te duñu ko yëg ndax mbooloo dafa bari doole man ngeen ñoo joggi te duñu ko yëg loolu laa wax waaye waxuma ni da nga koy def yow mu ngoog ah bi nga xamante ne wax na loolu euh, xorondom bi ni ko nag soo gisee ma wax la loolu danga di borom doole ndax li la yàlla jox muy nguur ak nubuwa néew na ci jaamam yi ku mu koy jox te yow yàlla daf la koo jox te mën nga ñoo dëgg te duñu ko yëkk ndax mbooloo mbari mi majorité mbooloo dafa doy waar te soo ñu jógee ak sa mbooloo mi te yëgooñu loolu yàlla du leen ci topp ndax nit ki lépp lu mu def te xamu ko yàlla mën na ko cay jéggal kon bu ngeen ñu dëggaatee te jubluwuñ ci tooñ ah sa soldat itam jubluñ ci tooñ ngir topp mission ak ànd ak yow ci seen ndigalu boroom ñu ñàkk ñoo gis maase lañu boo yàlla du leen ci fay ko moo tax ma ni e, nañu dugg te yéen du ngeen yëg benn ba des da fekk yow Suleymaan yàlla daf la may doole te may la teraanga ba tax na xaju leen ci ñun ñun askan wii di xool doom xaju leen ci ñun ma bañit e, sama xeet muy ñun xorondom askanu xorondom may bañ euh, sama njaboot gi gis la ak say may ak seen soldaar ni ñu bare ak mbooloo mi ñu bare ma bañ ñu ñee la te yàlla bëggul koy ñeetaane nekk su ko defee euh, seen pas-pas day daal di yàqu xam naa nag man nag moom ni ma mel mën naa laa dégg ko te doo ma yàqal dara doo ma yàqal doo ma yàqal dara waaye ñoom eh, ni ñu bare te noonu la ñu wutee wute ay jikko seen incarnation ak seen mbir mën na tax ah ñoom eh, du ma dootu ñu dootu dootuñu dootuñu la mën a supporter moo loolu rek laa ci bëgg gis na seen wax ji wax ji gudd lool. explication bi tam gudd lool nu ngi sànn eh, gis ngeen wax bii xorondom moo ko wax ndax dafay am ci nit ñi ñoo xam ne dañuy complex complexe ba situation bu jóg dépassé leen lu jóg rekk nga xeeb la nga am teg sa bët la keneen am ba tax nga yàq sa pas-pas wala nga yàq sa sa sa répétition wala sa crédibilité loolu milieu mën na ko yóbbee nit situation mën na ko yóbbi nit euh, changement jikko mën na ko yóbbi nit maanaam daal foofu li ma fa gën a bëgg a wax mooy lii xorondom bi wax te muy dëgg dañ ci gën a bàyyi xel complexé mën na yóbbu nit ci erreur yu baree baree bari ndax daf ko ni damay bañ sama njaboot gis sa njaboot ñee la kon ndekete ndigam ndigam ndeg ment yi ñooy bañ ñee kenn ba yàq seen ngëm walla yàq seen pas-pas sàkkantuma la mbindeef fii di nit moo tax bala ngay jóge ca taax ya di ñëw bala ngay jóge ca kaw ga di ñëw ci taax yi say waajur war nañu pare ci yow ndax bu ñu paree ci yow rek foo dem man faa nekk bala ngay mën a bokk ci lenn wala ngay wàll yenn ci lenn wala ngay associé ci benn mbir war nga bàyyi ba sa sëriñ pare ci yow mooy ki lay jàngal diine ak ki lay formé wala say waajur yi lay jàngal ngor yi lay jàngal diine ba ñu paree ci yow bu ëllëgee foo mën a dem da ngay xam ne lii artificiel la man la ma gëm mooy lii la ma bokk mooy lii dafay dem ba ci sunu xale yi jóge ca kaw ga ñëw ci Dakar ñëw ci taax yi liñ ma ne général liñ leen di gën a moytuloo rek mooy roy dàq li nga jógee ci àll ba ñëw bàyyi sa papa walla sa yaay ñu di ay mag ngay jigéen daan doole ak bañ a sonal waajur tax nga jóge ci àll ba ñëw daan si sa doole foofu li lay gën a bàyyiloo xel rekk mooy bul fàtte mukk la la tax a jóg ku mbojjan tax a jóg doo weer sa doo weer kuur ku mbojjan tax a jóg doo weer sa kuur moo tax nga gën a war a gën a góor góorgóorlu wodd bu dëgër ndax léeg-léeg nga ñëw fi dëkk bi xaw a neex ci yow nga dajee góor gu doy waar mu nax la nax la foye la walla mu def loola loo xam ni du loo bëgg mu trompé la nga tas sa yaakaar yooyu jur trompé sa bopp ah yàqal yàq lu bare bare bare loolu complexe mën na ko indi lu lu indi complexe mooy ñëw rekk bëgg a bokk bëgg a nekk nandate jaxasoo nit ñi lu xew nga ne acca jiit bëgg a jiite lépp bëgg a diriger lépp lu na nga bëgg caa bokk mën na dem ba dem a dem ba nga fàtte la la tax a jóg te nag kootu jubbu ba ñu la xamee ah ñu fatt la wala ñu fàtte la loolu nañ ci gën a bàyyi xel ba ci xale yi góor yi ni mu amee ci xale yu jigéen tam noonu la amee ci xale yu góor yi léeg nga ñëw li tax a jóg say parents di mag nga ñëw amaguloo foo liggéeyee yàlla wërsëg nga yor sa saret di ci càkk-càkkal wala nga yor sa métier di ci càkk-càkkal bul ko xeeb bul ko xeeb léeg sa moroom rombal nag sol loo xam ni jekk na ci moom te jàpp na ko bul xam fu mu ko jëlee bul xam itam nu mu ko amee boo gisee sa moroom mu yor oto wala mu yor scooter boo xamante ni day dem dëkk ba ñëw wala nangam a nangam teel xamoo ndax day jaay drogue xamoo ndax day dugalante xamoo ci lu mu bokk teeyal ca tepp tepp ji ngay am bu ko ndax tepp tepp gën yuréet maa ngi ci complexe rek de ci yonent yàlla Suleymaan ak diggante ma xorondom bi mu ni ko ñu gis la ñee la mooy nit ngay ñëw fekk si ko fi ngeen bokk benn dëkk mu yàgg fi am taraanga tey ku yàgg ci baag bi ku yàgg ci teen bi baag fekk la fi mu yàgg fi yàgg galère yàgg galère yàlla may ko taraanga nga ne itam dañ kut ku tey lay amam taraanga ji xamoo fu mu jaar xamoo nu dafa am ko xamoo ku mu xamoon xamanteel xamoo lu muy séq ak nit nga ne ca bax mën na laa tromper maanaam daal complexe mën na yóbbee nit ci lu baree baree baree bare soo de ab taalibe jóge ca daara ja ñëw fii nekkalub taalibe yére yi ngay sol bu ko dara changé sa waxtu julli bu ko jënd dara sa waxtu xëy bul ko jënd dara sa ñeewante sa cofeel ci dëkk ba bul ko jënd lenn bu ko jënd lenn loolu boo ko defee rek complexe woo gis nga ni mu valable ci dakaar noonu la valable ci yéen ñooñu nekk ci bitim réew léeg-léeg nga ne cëpp Amérique wala nga ne cëpp Allemagne wala nga ne cëpp ci réew moo xamante ni xamuñu fiy metti ndax xëy na pat yàgg nañu ci loolu te loolooy seen aada loolooy seen cosaan teel neel tekk rek neel tekk te teey boo ne tekk tekk wan la yoon ku ne tekk tekk wan ko yoon lu dëkk bi xumb xumb xumb xumb reer tëdd mooy wallu reer doxi yu bari bul ca bokk yu bari bul ca bokk yu bari buñ la ca tudd du man rekk bokkuma ca ak gën wax ju doy waar la bari na xale yu góor yu bari ci xëy na léegi mais bari xale yu góor yu bari ngi di tux élèves yi bari ngi ni di tux mais complexe la complexe dong nga tax ñuy tux ñëw nga ci milieu bi ah, fekk benn groupe boo xamante ne xëy na bëgg nga intégré groupe bi te yaakaar ne soo gënoon rajaxu doo ci bokk wala nangam ak nangam la mais luy tuux pour lan bari na ku ñëw ñu cëpp ci ay waajuram yaakaar ko nga ñëw fii ci dëkk bi nekk ci ndakaaru nga bëgg a intégrer wala bëgg ñu bëgg lay tudd bëgg ku lay tudd nag tax nga ni cabax ci loo xamante ni dana la doy sukk kaalak mbaxana du ko jar nit ki du complex soo ñëwee. bul dafi àndandoon ñi nga xam ni fi la dëkk te seeni i bàyyi am lu ne seeni ndey am lu nekk ñu am pexe mu nekk lu nekk ñoom buñ ci duggee bu ñu xëyee suba suba suba mën nañu ko lijjanti mu sotti yow sa bàyyi xamul taax xamul dëkk bi àll ba la nekk sàmm ak bee la xam yàlla baaxe la nga jëkk am bag ñu orienté fi soo ñëwee teeyal taxaw ci ginnaaw bul jiital dara bul jiital dara yaa yor nangam mag sunu morom yi danga ma étudiants yi ñun lii la def ak ku ko yor na nga yor yooyu yëpp mën a ci fekk taxawal ca ginnaaw kenn ku ci nekk euh, li naan njàng-njàngaan ku mokkal ber sa daara li la fi tax a ñëw mooy jàng def fi quelque temps def sa formation am foo teg sa loxo di dimbali say waajur c'est pas la fin du waaye bëgg fi dir sa lu ne nga yore ko fi lu ne nga yore ko fi ba xëy ah dugg ci gute goo xam ne doo fa mën a génn wala def tooxi loon wala ñu def la loo xamante ni dafa la yàqal sa carrière yëpp ah loolu am na lu ko gën wax yàlla ma ngoog bi may daaneel nag ci wàllu complexe mooy suñu mbokki jigéen ñi ñi nga xamante ne nii ñu baree baree bari dañuy xeesal complexe donc te xorandam bi lay war na cee mën a joxe exemple bu rëy rëy rëy ndax gisub tubaab mu xonq cur karaw gay daanu ci ndigg la yàllaa ko ko may lu tax nga xeeb sa kawar gu gàtt gi lu tax nga xeeb sa ñuulaay bi gisagu leen benn tubaab buy diw pour bëgg a ñuul amul te ñuulaay dafa rafet ba dee ñu defar seeni produit ni kaay leen mel nañ noonu ngeen di ko jënde lu cher di ko teg sa der di ko diwoo jamono boo góorgóorloo ba xonq cur na la wóor ni dese nga weneen tëbin dese nga weneen tëbin dangaa ñuul góor gu lay bëgg te bëgg laa takk te bëgg ko xees nee ko wutal ko xees man damaa ñuul wutal ko xees man dama ñuul man xeesalu ma du yàq sama der ndax yàlla kat dafa wax ni yàlla du yërëm ñiy xeesal laa tabdila li xalqillah laa na allahu alwaasila wal mu mustawsala wal wal mutanammisina wal mutanammisaat wal mutafallijina wal mutafallijaat te xadis bu gudd la ngoog ñiy def tatouage ak ñiy yokk seen kawar ak ñi yett sàkkara yàlla ñoom ñépp ak ñiy xeesal yàlla du leen yërëm xadis bu wér la te muslim a solo moo xamante ne nii ñi gëm yàlla gëm alxuraan gëm lislaam xam nañ ne lii lu yàlla wax ba pare la kon complexe baaxul foo mën a nekk su waxtu julli jotee jógal julli réyon bi lu mu rëy rëy rëy rëy ak place bi nga nekk lu mu rëy bu julli jotee nekk fa kopp dem julli ji inna salaata kaanat alal muminina kitaaban mawquuta julli dafa am heure dafa am waxtu bu dee ay député la ñuy nekk assemblée waxtu julli jot nañu teg dossier yëpp tëj ko dem julli ji te ñëw laïcité ne veut pas dire bu julli jotee doo julli ji déedéet démocratie tam noonu la ab jullit fu mën a nekk warul complexé tudd yàlla ak fu mën a nekk rek lu place ba nekk nekk nekk nekk na jàpp ni eh, place ba yàlla ko bind yàlla nee na du ci julli gi ngeen def këpp këpp gi àlla ak wasalaamaaleykum mais waxtu wi nga yëg ni yàllaa ko santaane te waxtu wi jot na rek nga xamal ko ne nag léppi àddina yàlla yow yaa ma ko gënal lu may yóotu ba jot ci yow lay neex ma jariñoo ko yaam a ko gënal nee naa ko këpp dem defi li ma wax ak lu julli ga gaaw gaaw loola saf na yàlla loola neex na yàlla te loolu la yàlla bëgg waaye naan xaaral ma àggale xaaral ma àggale xaaral ma àggale ndax rus nga romb nit ñi yaa ngay julli jeey kon na di wax loolu jarul jarul jarul jarul jarul yaatal nan ko bàyyi xel ndax wax mu àgg yàlla la sot yàlla la neex nit jóge na këram ba tàyyi te àggul fa mu jëm nit xëy na ba tàyyi te dellusiwaatul këram te boo dee jullit nag ak fu ko yàlla dogaleeg nu mu ko dogaleeg kañ la koy dogal te war na laa neex waaye noonu ngaa ñaan yàlla boo koy defit nga wàccoog tegandaay yi la yàlla tegoon doonte xëy na defoo ko na nga xamante ni noonu la ko yàlla bëggee waaye yow def nga ko rek ngir moo ko sant nga def ko kon teggi geeg bañ koo def amu ciw yoon mu ngoog su ñëpp àndoon doon julli du tax yàlla yokk leen ci moom ci nguuram gi du ko yokk dara su ñëpp lànkoon bañ a jullitam du tax mu du teemu muy buur du wàññi ci nguuram gi wirgil kon ñun la yàllay dimbali ngir ka no mérito taraanga ji mënu jox ëllëg ko lànk yaa xam kon mbokk yi gis nga xorondom bi wax jure ji mu wax gis ngeen njàngale mu am solo mi mu wax fa tabarakallahu complexe nee na damay bañ samay njaboot samay mbokk gis sa njaboot gi ñu buur topp leen bu boobaa ñu ñàkk lañu amoon yàlla bëggul ko ñee kenn yàlla bëggul ko jël sa bët tekk ci li sa moroom am yàlla soxlawul loolu loolu rekk a tax ma bëggoon tabaarakallaahu ah, ni leen dugg leen rek ba ñu jàll ngeen door a génn ndeysaan Souleymane di déglu xorondom bi eh, kontaan lool ndax wax ji xoron bi bi xorondom bi di wax dafa neex ci yonent yàlla Souleymane Euh, yonent yàlla Suleymaan daan ne xorondom bi izzini euh, waar ma euh, ndax li ngay wax ñu ngi dugg ci sama xol ndax waxi dëgg rek nga ma wax xorondom bi ni ko hal alimt li ma summiya abika daawud alayhi salaam xorondom bi ni ko est-ce que xam nga li tax yàlla tudde yonent yàlla daawuda daawuda sa baay yonent yàlla Suleymaan ne ko déet déet xaw ma lu tax mu tudd ko Suleymaan xaw ma lu tax sama baay yàlla tudde ko eh, daawud mu ne ko daawa jaraxata qalbihi ndax dafa faj góomu xolam ndax moom eh, dafa feebaroon ci bëgg àddina sa papa daawuda dafa feebaroon ci bëgg àddina xër ci wàllu àddina comme li nu dal ñun ci ji jamono nga xamante nii koo siir muy daw rek dërëm lay wuti àdduna lañu gën a may yitte ka àllaaxira temps bi ñu jox àdduna joxuñu ko àllaaxira yitte ji nu jox àdduna joxuñu ko àllaaxira booy xool sax ñun suñu système bi nga xamante ni moom la ñu doxee xoolal rek euh, vacances daanaka neuf maa ngay jàng noppalu trois mois xanaa kay bu fekkente ne réew mel na Sénégal dañ ne ay julit lan neuf maa nga jàng xanaa jaadu woon na ñu ne kon trois mois yi naka ñëpp jàngi maanaam ñuy julit dañu dem jàngi daara bokk wala dañ jàngi alquran ndax itam perte temps mu paasewul nga di jullit toll ni nga war a tollu majeur di jàng leneen di yittewoo leneen loo xam te àdduna képp la waaw képp képp alaxira maanaam sax boo ci góorgóorluwul te am baasu diine xëy na doo doo ko liggéeyal nga def ci neuf mois ci at mi trois mois yëpp nga def ko tëgg ak fecc alors moo tax mu ni ko daawa jaraxata qalbihi eh, sa baay daawuda dafa faj góomi xolam ndax dafa bëggoon àdduna lool yàlla nattu ko mu muñ ko mu neeti ko waxal tadri li ma sumiita Souleymane est-ce que xam nga lu tax yàlla tudde la Souleymane yonte Souleymane nekk di ko déedéet mu ne ko li annaka salimun wa kunta ila ma utiita bi salaamatin eh, bi bi bi salaamati sadrik wa xaqan laka antul tulxaqa bi abika daawud alayhi salaam mu ni ko li tax yàlla sunu borom subhaanahu wa taala tuddele Suleymaan mu ni ko ndax danga nga rafet xol ndax li la yàlla jox yaa ngi ko yaa ngi ko téye xol bu rafet ak yéene ju rafet te lépp itam yaa ngi koy delloo ci yàlla lu teraanga rëy rëy lu may rëy rëy lu kéemtaan rëy rëy rëy rëy rëy la ngay wax rek rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya loolu rek moom ngay wax lu tëra nga ji rëy rëy rëy mooy yàlla yàlla nga ma dimbali ba ma mën a sant sama borom maag samay ñaari jur yalla nga yaatal sama dënn ba ma mën a sant xéewal yi nga ma defal maag sama baay maag samay wayjur buur dëgg boppam lay gisti ci lépp xanaa gisoo sunu buur àdduna yi ñu ñi nga xamante ne sax ñoo ci doxal démocratie fi ne kenn ku ci ne bëgg nga loolu liggéey nit ñi gis ko moo tax ñii am seeni ay seen i télévision ñii am ay seeni i journal ñii am seen rajo ñii am seeni i nangam ñii am seen nangam nangam am na loo xam ne boo ko mën ta wax itam nga fexe ba banaliser ko rek ñu la koy waxal mu ngoog yëf yaa ngi noonu daal Daawuda nag euh, Souleymane nag moom lépp lu mun a am rek yàlla la koy delloo si incha allah subhaanahu wa taala waaye du ko du ko du ko du ko du ko ngardajoo du naan mënu lamma su woon ak man war ngeen maa tudd maayo nangam nangam maa fi indi nangam maa fi def nangam ak nangam loolu moom yonent yàlla euh, Daawuda yonent yàlla Souleymane euh, muccoon na ci loolu jomboon na loolu fa tabarakallah yonent yàlla Souleymane gis ngeen digganteem ak xorondom boobu déggoon ngeen digganteem ak picc ya déggoon ngeen tam digganteem ak siq ya ganaar ya yàlla sax sunu borom subhaanahu wa taala nee na wa in min shay'in illa yusabbihu bi hamdi walakin la tafqahu tasbihahum amul leen luy dox ci kaw suuf loolu ma ngay sàbbaal sunu borom waaye nag yéen du ngeen xam wax ja du ngeen ko dégg ma ngoog yàlla def eh, dégg gi ñuy dégg ñun duñu duñu dégg waxi picc yàlla moo tëj suñuy nopp ci seeni wax moo tax duñ leen dégg euh, xeeti xam-xam yu baax yu am solo nag mos na dégg ci sëñ Moustapha Saliou ibnu Cheikh Salih Mbacke ibnu Cheikh Khadim euh, muy nettali benn waxtaan wu am solo neena fi ko sëñ Abdoulahat jaarale ci yar ak nee na xeeti xam-xam yi ko sëñ Abdoulahat euh, doon jàngal ba egsi ci ni mu neen ko ndax xam nga li nga eh, ndax xam nga lay gis ci kanam di gis ci ginnaaw mu ni ko déedéet mu ni ko lépp loo xamante ne bët bi day ubbee ci digg bi mën naa gis ci ginnaaw mën na gis ci kanam xool yooyu te xam yooyu xeeti xam mu ni ko ndax xam nga li nga xamante ni mën naa gis ci lëndam ba pare di gis ci leer mu ni ko loo xamante nii mbaru bët ba day ubbeeku ci suuf mën naa gis ci lëndëm mën naa gis ci bi xool ba xool xool nga yooyu xeeti xam-xam yooyu mm, du ñëpp a ko xam yàllaa koy jagleel lenn ci ay jaamam yonent yàlla Suleymaan daal li ma bëgg a wax foofu mooy amoon nag cant lool ci borom bi subhaanahu wa taala waaye yonent yàlla daaw Suleymaan di continuer rek di laaj xorondom bi ni ko ba tey continuer waar ma eh, xorondom bi ni ko atadri li ma saxara allahu laka riix est-ce que xam nga lu tax yàlla tàggatal la suuf waaw ah, tàggatal la ngelaw lu tax yàlla tàggatal la ngelaw ndax yonent yàlla Suleymaan yàlla da ko mayoon bu waree tukki dafay lal benn tapi rek ngelaw li ronu tapi bi rek mu sojjet mook mbooleem lu bëgg mu dem rek loolu dina di ànd dem ak moom lu nit di dox ci weer mu dox ko ci benn bis loolu nag yow mën a dégg ndax avion ngi nii bu njëkk mag ñi bu ñu daan dem Màkka dañuy dugg saxaar wàcc Marseille dem Alexandrie ci ay diir yu bare bare bare bare bare bare bëri door dem Jëdda euh, euh, war ci gileem yi door a àgg Medina wala Makk loolu daawoon nañ ko def ci ay juróom benn weer wala ay ñetti weer yu tegaloo nga xamante ne da ngay dañuy dañuy dañuy da dangay tabaski rek départ di dox di wàcc di dox di wàcc di dox di wàcc ba ngay àgg xoolal léegi si bu ñu nee premier avion day départ six heures de temps la wala boog huit heures de temps mu ngoog huit heures de temps Dakar Jidda euh, Dakar Médine Médine Dakar huit heures de temps loolu kon te xamuloo ñaata mille kilomètres la ma mu ni ko nag euh, li tax yàlla tàggatal la ngelaw loolu moo ni ko li yuux bi rek ko anna dunya kullaha riixun mu ni ko yàlla daf lay xamal ni àdduna li ci nekk lépp ngelaw la ngelawal kese moo nekk ci àdduna bi amul lenn loo xamante nii lu fi taxaw la mu ni ko ni ngelaw gaawe noonu la àdduna gaawe ni am am gaawe noonu la ngelaw ni ngelaw gaawe noonu la am am gaawe ni ngelaw gaawe la ñàkk gaawe ni dund gaa eh, ni ngelaw gaawe noonu la dund gaawe maanaam amul lenn loo xamante ni dafay sax am saxul ñàkk saxul wér saxul wéradi saxul dund saxul dee saxul bànneex saxul mettit saxul dara saxul ni ngelaw gaawe noonu la yëpp gaawe loolu lu jar a xam la lu jar a bàyyi xel la mu ngoog mbokk yi yonent Yàlla ku rëy nguur la woon jinne yi dañu ko doon liggéeyal yàllaa ko moyen pouvoir junne yi ragal ko nga xamante ne ku mu ci xool da leen daan duma duma yi métti leen mbugal mbugal yu tar napp leen ba nga xamante ne du ñeme xool doomu aadama teg leen ci yoon yu ne nor waaye yéen jël Suleymaan bis yàlla di ko bëgg a wan ni ko nag lu yi fi xumb rek ni mana a waaw bul ma boolee kenn lu mu xumb xumb rek gëmal ni man la te jàppal ni man la yonent Yàlla amoon na jenn doom ndeysaan doom ji feebar feebar bu metti ñu yóbbu ko ci médecin yi faj wérul ñu woomaa xam yi wérul pexe mu nekk ñu def ko wérul sooy man a tax koon job jaboot dara wax dëgg yàlla mu jaaxle bés nag mu woo jinne yi ni leen nag waaw xanaa xam-xam bi ngeen am wala boog sax ñi ngeen xam muy seen moroom yi jinne te bokkuñ ci ñi ma yilif xanaa du ñàkk am nañ ku ci mën a am xam-xam bu mën a faj sama doom ji mm, am jënd jënd di ko ne ah man dey am naa sama wëllëre boo xamante nii sama xarit la mais moom mi ngi ci géej gi semaine ba semaine lay génn semaine ba semaine lay génn waaye su génnee day naqaree gis te bu ma waree wax ak moom sax su gisee ne ànd na ma keneen day refuser day bañ mais nag mën nañ def fexe wu ko jàppee waa def leen pexe ngeen jàpp ko mu ni kooku de am na xam-xam loolu Souleymane nekk ah mu ni waa kooku am na xam-xam trop mu ni kon nag euh, fexe leen nu ngeen ko jàppee wax na ni ñu dagg dama benn seetu fexe daal ba am nataal xam mu jinne li muy bari bari bagaas xel mi guddul ñu teg nag benn bis seetu bi mu génn rek yem ci seetu bi rek ji ni tël rek yem jàkkaarloog boppam mosu ko gis mu taxaw ni yàng nag di xool waaw ni taxaw ni yàng di xool di xool seetu bi di ko xool gars yi nag jógee ka kanam nag xam nga bu bu bu taxawee ci seetu bi boppam rek lay gis di def ay grimace ni gars yi ko seet eh, kanam nag gisu leen ba ñu ni tëll ci kawam ba ñu ni tëll ci kawam eh, bi ñu ko gisee daal ni ko nuus jàpp ko bi ñu ko jàppee nag day saan ah mu daal di ñàkk pexe mu daal di ree nag xaqataay ca kaw ñu ne ko looy ree mu ni ah may leen ma wax xaqataay daal daal ree gu gudd ñu mu ne leen fu ngeen ma jëmee ñu ne ka ah, Souleymane de moom moo la soxla waaye nag soxla bi jàmp soxla jàmm rekk la doomam daal moo feebar def nañu pexe mu nekk pour jëm ko faj mënuñ ci am benn bunt ñu doon jàmp ne yow am nga xam-xam ne ko ne na leen dem ba ca moom ñu ànd ñëw ba jub kër gi ñu seen ñaari gaa yu toog di gisaaneelu xam nga gisaane mooy tomb yooyu yooyu ñenn ñi def ci yenn rajo yeeg yenn télévision yi di gisaaneelu yaa ngi sol bu mu weex yaa ngi sol bu mu bulaak gis naa la nga ak ginaar ginaar gu xonq ginaar ginaar bu bulo façon yooyu jinne ji ñëw ba tiim leen lee may dem tuuti ñu may ko mu ni may dem ma ree ñaari gaay yi daal di xaqataay ba daanu ci suuf waaye gaa yi ni ci rek ñu ñëw ba jub yonent yàlla Suleymaan mu ni mayaat leen ma man reetaan ñu may ko mu xaqataay ba yonent yàlla Suleymaan bëgg a mer ni ko waa yow lan la gaa yi ni ko ah, Suleymaan moom de booy nga laaj ko moom daal ñetti bërëb nii la fa def bi mu ñi bi ñu ko jàkkee jàpp dafa ni may leen ma ma reetaan am na ñaari gaay yu mu romb foofu fële koñ ba nee may leen ma ree ñaari gaay yi ah bi mu jàkkaarloo yooyu itam mu ni daf lay reetaan ñu nag loolu mooy suñu problème ñu ko lan mooy sa xàqataay gu njëkk gi mu ni ko xàqataay gu njëkk gi day mooy fii ak fii quarante ans yàlla wax na ma fi li war a am wax na ma fi li ma fi war a def wax na ma fi li ma fi war a gis mais jàpp gi gi ngeen ma jàpp yàlla nëbboon na ma ko gis nga moo tax yàlla ak noo mën a mel ak rëy rëy rëy am na lu mu la am na lu mu la lu mu la nëbbal moo tax wilaaya lu mu rëy rëy dana am temps boo xamante ni nit ngay doon ak nubu wëtam lu mu rëy rëy rëy dana am temps boo xamante ni nit ngay doon da am temps boobu da ngay lekk da ngay mer da ngay meddi da ngay gëmmentu da ngay takki jabar da ngay ami doom da am xaalis façon yooyu nit a ko moom moo tax nekk ci nubu continuellement wala nekk ci wilaaya continuellement yombul mu ne ko nag yàlla mayoon na ma cër lool waaye jàpp gii ngeen ma jàpp nii yàlla ma ko woon loolu laa doon ree di yéemu sama boroom ci nii ngeen ma piégé ba jàpp ma Souleymane ne ko waaw geneen reeg yi des mu ne ko reeg yi des nga maa ngi la koy ree mooy dama gis euh, euh, ñaari gaay yu toog di gisaane mais ñaari gaay yooyu dañu génn di wuti alal di wuti xaalis si ci seen dëkk ya te ñoom fa ñu toog bu ñu gasoon mètre rek la fa nekk ci jamaa ak la fa nekk ci or mu ëpp seen budget réew te xamuñu ko ma xam ni doomu aadama moo gàtt xel loolu laa doon reetaan mu ni ko ñett yow man nag loo ma doon ree man Souleymane mu ni ko yow Souleymane li ma lay ree mooy cër bi la yàlla jox nga dib yonent yilif jinne yi yilif picc yeeg xorondom yeeg ndeg ment yeeg lépp nga mën a wax ak ñoom mën a communiquer ñoom cër cër bi nga am ak xam-xam bi la yàlla jox ak mbooloo mi li muy bari bari bari amoo lu dul jenn doom ji mu feebar kenn ci ñoom xamul luy saafara feebar bi te garab gii nga toog nii soo witee ci xob yi baxal ko ba mu bax nga nga jox ci xale bi mu naan ci nga sang ko ci rek xale bi wér xamoo ko sa gaa yi xamuñu ko moom lay doon reetaan yàlla ni mu mel ak taraangay sunu borom su la ma mu ni ko waaw waaw boo koy def rek xel bi di wér de mu ne ko loolu de xaw ma ko woon hmm? mu ne ko waaw waaw nii la de lii la mu ni ko de ca yàlla gis ngeen xoolal boobu kiyam taanati mbokk yi gis ngeen sunu borom subhaanahu wa taala lépp lu mu la jox am na lu mu la nëbb lépp lu xew rek am na lu mu la nëbb kon nag yaakaar naa ni ah yal na yàlla def jàmm ñu teg foofu sunu baaraam incha allah ba ajjuma jële ñu ñëw ñu ñëw nag ci Souleymane ba léegi yal na yàlla def jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër ñu ngi nuyu sunu soppe yëpp seen mbokk Oustaz Alioune Mbaye la woon ci waxtaan wi Assane Thioune moo nekkoon ci technique bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu